kon sëñ Modou tey dinaa jàngale ci latif. Mhm. ndax zikarkatu latif yi nag ñu naan man dooñu utal cuuraay ba noppi nag. te joxoñu ay dog. te joxoñu ay dog wallaay. <laughs> latif am na dog boo xamante ni ñu ngi koy muux na xàqu noonu lañ ko noonu lañ ko tëggee. Mhm. muux na xàqu jaaro bi ñu ko dippee rawxaaniya ndax xam ngeen rawan bu ñuy wax Shamsu Xoroshin wala rawan bu ñuy wax yaa Seydi may dataron moom lañu ko liggéeyee ak leket bu bees xaru benn melo wala ganaar jaaro bi ñuy defar ba noppi ak sikar samo àndal su pare jàppal ni yow ak rawaan yi yéen a ànd mu lay dimbali ci lépp loo bëgg ubbi sa wërsëg jox la bayre di la aar boole ci jaaro bi nag li muy bañ takku ko ba pare ànd ak koo xamante ni takkuloo ko maanaam maanaam di njaaloo wa ilaa nga am wërsëg bi la yàlla jox doo ci sédd jam yàlla yi maanaam doo partagé jaaro bi nag kenn du ko defar di ko teg ci barab sur commande rek lañ koy defar maanaam da ngay jokkoo ak cabinet Sajaratu Touba moom Serigne Malick liggéey mu baax mi ña nga ca Kër Massar terminus 53 bi numéro téléphone bi 77 539 19 04 77 539 19 04 cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk yi nga xam ne yéen ñu topp di ñu seetaan ci télévision bu mag bi di Sadiaratou Touba TV ñu amati mbégte ak kontante àndaat ak yéen ci euh, beneen émission jàkkaarloog Serigne maa liggéey di borom xam-xam bu mag waaye tamit di nit ku yàlla baaxal te nag ñu fa yéene waxtaanee waxtaan bu am solo xam naa dama koy jox mu nuyoo rek su ko defee ñu mën a dugg ci waxtaan bi Serigne bi ñoo ngi leen nuyu. ñu ngi lay delloo nuyoo sëñ Modou Bara auzu billahi mina shaytaani rajim rahmaani rahim alhamdulilah alquduus fi xaybil haahut almutajalla bil asma wa sifaat fi xadrati laahut mhm. almaabuud fi aalami almalakut waljabarut wannaasut mhm. wasalaatu wasalaamu ala man basara fi haajimati bi xams wa kullu man amana bihim lal jinni wal insi sëñ Modou ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax di la wax tafaddal mashkuran allah ñu ngi lay jëfal bu baax a baax ci nuyoo bu tedd boobu xam naa ni produit yi nekk ci biir cabinet Sadiaratou Touba bari na waaye tey damay jël ñett rek ñu waxtaanee ko sans plus tarder su ko defee ñu mën a dugg ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne fas yéene nañ koo waxtaan ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp mm. bi may njëkkee sëriñ bi mooy garabu mbàcci coor mm. lañ bëgg nga leeral ñu ko luy mbàcci coor ba pare mm. ñëwal ñu ci li nga xam ni maanaam moom lay faj waaw sëñ Modou mbàcci coor moo nekk ni lii mooy mbàcci coor garab gii la ñuy wax mbàcc coor. Mhm. mbàcc coor. Mhm. Mhm. waaw xam nga man damay bëgg di dox ci preuve. lépp lay wax na leer. macha allah. man nee naa ni may liggéeyee mooy damay fekk maanaam ay principe principe actif. ma dooleel leen. dëgg la. dégg wax ji. garab gi am na ay principe actif Mhm. maanaam njëriñ loo xam ne yàlla def na ko ci ba noppi nga xam du maa liggéey ko ci jëmbat wala ma sàmm wala ma demb mhm. jëmmi garab gi rek lu ngeen ci fekk la ba pare lu ngeen ko ci fekk la mhm. léegi dooleel gi ma koy dooleel mooy leen sama xam-xamu bopp bi nga xam ne moom la am ci alquranul karim te nga xam ne alquran mën naa booster lu ne dëgg la Modou man damay booster da wax ji <laughs> <laughs> est xam nga yi dañuy dem ci Facebook bi fekk Facebook ni mu mel plateforme bi nga xam defar nañ ko ba noppi nga xam ne moom loo fa dugal rek nit dina ko gis donte benn ñaar nit mhm. waaye boo bëggee booster moo du xam nga fi ngay jaar nga dooleel ko daal da ngay dem uh-huh. ngi dégg di ko dooleel uh-huh. mu ne la ñaata vie nga bëgg mu mhm. laa bëgg mu am en vingt quatre heures wala mhm. quarante huit heures mu la fayal ma ñaa nangam ci ay ma booster la ko mu yéeg dëgg la léegi man booster boobu nag moom laay def ci produit mooy garab yi yàlla saxal ba noppi laay booster est-ce que su defee nag moom mii day dox ci néew kattan Mhm. soit éjaculation précoce soit érection mauvaise érection. Mhm. waaye itam dafay dox ci yeneen yi tawat sax ci tawatu biir yi. te góor nag ñaare bu biiram setee rek. Mhm. maanaam daanaka fonction bi nga xam ne nii moom la war a am ci wàllu ngóor a day yomb. macha allah léegi moom mi la ñuy liggéey ci benn butéel. boo xam ne saafara bi la ñuy jël wala ko ci muy quinze mille francs. ngay naan di dolli ndox ba traitement bi jeex. wala ñu def ko ci poudre en poudre pour ñu nekk Europe. mélanger ko. lañ koy mélangé am rab jox la ay mbuus ngay comp di jëfandikoo mhm. Mhm. lii mooy mbàcc coor. macha allah mooy jar quinze mille. Mhm. su ko defee mooy dox ci wàllu ku am problème mu ngóor a. allah taala. macha allah mu ngi noonu sëriñ bi mu doon lu am solo waaye tamit mu mel ni amaat na beneen boo xam ni it uh, muy mamiso boobu it dafa mel ni day dox ci wàllum ngóor a waaw mamiso suñ móolu bu leen ma tënk ko mamiso matin midi soir ndax dama gis ne ñiy jàmbat affaire u tële yu bëree bëri ndox mu ak hémorroïde mhm. wala diabète wala hypertension te yooyu yëpp day sabab néew kàttan dëgg la mu waral na ma def pack boobu def ko mu nekk ma mamiso mhm. muy ñetti garab bii di faj siti bii di faj hémorroïde bii di faj néew kàttan mhm. nga xam ne léegi moom ñetti paquet yu mag lay doon nga jël traitement ba mu jeex am jàmm insha allahu taala macha allah matin nga jël benn bi midi benn nga jël benn bi soir nga jël benn bi moo di ñu ko fi jëndoon yëpp nag retour yi leer lañ la jox macha allah waaw wax ma dara fagal na leneen loo xam ne sax dëgg la tubaarkalla sëñ <laughs> Modou kër gi moom bu bëggee mu neex. Mhm. <laughs> ah sama waagee daan na ma ko wax de. wallaay ndeysaan na ma na ma sëriñ bi ma ma ne ma. Mhm. waaw léegi dépense bi day manqué amul problème. dañ koy ñu gérer ko waaw. Mhm. waaw yeneen ñu ndox coupé ndox mi ñu dem rooti. wallaay waaw mu ne waaye affaire bu manqué mu ne ma dañ lay jël. <laughs> wallaay dëgg la de wallaay ndeysaan. yàlla yàlla dal taw kër gu neex bokk na ci la ko neexal. waaye ñi nga xam ne dañuy nekk Europe. bëgg di jëflanteeg tubaab yi. a sëñ Modou xam nga waxoon naa fi benn bis ma ne Euh, nga nekk Europe def fa 40 ans. Uh-huh. def fa 30 ans saa boo ñëwee senegal da ngay luye appartement ba keroog ngay ñibbi nga dem. wallaahi. loolu du sakk. déedéet. te yaakaar naa bi ngay bi ngay jugee fii li la tax a jug. Uh-huh. ba génn réew mi mooy dafa am loo bëgg a ay ay buum gàcc yoo bëgg a dagg. Uh-huh. wërsëg nag ci loxo yàlla nekk. dëgg la wërsëg. ci loxo yàlla nekk. waaye nag. wallahu yarzuqu man yashaa bi xayri xisaabin mhm. gars yi dañuy jël léeg-léeg benn aay rek maam di ko taafantoo mais yàlla tamit nee <laughs> mhm. képp kuy dox ci kaw suuf maa sa wërsëg kon loolu kenn werante ko mhm. waaye wallahu yarzuqu man yashaa bi xayri xisaabin yàlla nee maay wërsëgal ku ma neex ci lu coono nañ nañ fexe bokk ci ñooñu dëgg la wa yattaqillaahi yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqu min xaysu laa yaxtasib yàlla nee na ku ma ragal rek ma defal la max rek mooy loo dugg génn ci loo dugg génn ci wallaay ndeysaan ah mhm. wa yarzuq min haythu laa yahtasib dama koy wërsëgal sax foo xam du ko foog am na ñoo xam ne bu ñu xëyee jàpp ne tey bi la a jóge xoolal soowu lay jóge soowu lay jóge leen bu ñu xëyee ne 10 000 lay doon a neex wallaay voilà léegi su ko defee nag yooyu mooy waral nit ki mhm. a sàkku nag mhm. nu mu mën a jubeeg nasaraan sa nu ko mën soppee bëgg ko am na ñoo xam ne entreprise bu ñu liggéey ci biir tuwaab yi duñ fa def weer te dàqu ñu leen dëgg la. am na ñoo xam ne contrat 3 mois bu ñu renouveler mënuñu ko am. wallaahi. Mhm. am na ñoo xam ne location seen kër sax mënuñu ko fay. dañuy am jafe-jafe wallaahi ah, ndeysaan. te wax dëgg yàlla nag boo naree tumuraanke ci dëkku jàmbur ñibbi si sa dëkk moo gën. moo ëpp jàmm ngir yooyu nag bañ laa dal wala la ci. Mhm. da ngay wut mhm. <laughs> uh-huh. nga tey jii man mën na ma am xet bu naqari. nga xam ne man xam naa ne sama xet neexul. wala ma am xetu gémmiñ muy mauvaise haleine. mais sëñ Modou moo tax ma ut parfum piis piis jël tàngal mante wala dara yeey si ngom. Uh-huh. fu ma rek mu ubale mu neex. Uh-huh. <laughs> ah noonu la ñu la wallaay la ah allah li nga xëy na sax de. dëgg la parfum bu sàllee rek nga def musiba. wallaay ndeysaan bu mante bu sàllee nga def musiba. dëgg la càngat noonu la mel. des fois mm-hmm. xam ne sa yaram neexut waaye nag am na looy laal. di génn di dajante gaay uh-huh. day xëcc de wallaay ndeysaan waxoon waa xanaa da sangu ci ndox yu nëx yi <laughs> ndox yu nëx yi moom am na solo moom ah waaw macha allah macha allah moo tax tubaab dafa am solo ñu ne ñetti càngat lañ ciy liggéey. cent mhm. vingt cinq mille francs. dëgg la boo koy sangoo yàlla dina la tàggatal tubaab incha allah mhm. taala. macha allah mu ngi noonu comme li góor ga waxoon rek nee na kii di jëfandikoo càngat ak ki ko dul jëfandikoo ñoom ñaar bu ñu bokkee benn bërëb duñ bokk yem. dëgg la te loolu euh, bi damay ñëw ci li nga xam ne mooy cuuraay mulmul bux bux. Mhm. mën naa ne euh, gars yi niñ ko bàyyee xel kéemaan la. waaw mulmul bux bux. cuuraay la boo xam ne cuuraay latif la ci man. maa ko liggéey. muy sama cuuraayu latif dëgg la ndax xam xam naa fi ma jaar ak moom itam. gis nga njëriñ li gis naa njëriñ li. Uh-huh. xam nga dafa am benn kilifa bu ma waxoon ne mu ne mu ne cuuraayu oot oot. Uh-huh. mu ne euh, suurul jarul sax si kàr day dox. dëgg la. man nag sama cuuraay bi dam noonu laa wax. mul uh-huh. mul bux bux suurul sax même boo sikarul lay dox. rawatina nag ngay sikar moo tax sikarkatu latif yi ñoom ñoom ñoom ñoom moom cuuraay bi waaye nag. teewul sëñ Modou même boo sikarul. xëyal rek sànni ko ci taal bi noonu suur nga xool. Mhm. macha allah ndax du dox incha allah. tubarkalla waaw ah, moom <laughs> dañ ko defar mu nekk sachet bu yem bi onze mille francs pour ñëpp mën ci am. macha allah loolu moom xéwale na. Mhm. waaye sëriñ bi euh, fi may daanalee balaa ñuy ñëw ci li nga xam ne moom la war a waxtaanee mooy. mel na ne yaa ngi waaj voyage boo xam ne li ko waral lépp mooy yittee jaam ñi képp moo ko waral. Mhm. nga fas yéenee dem def ay découverte ngir indi li nga xam ne mooy saafara. jafe-jafe lu waral voyage boobu. man dafa am ñaari aspect yu tax may voyager mhm. damay def heure bu ma liggéeyee nag mhm. fukki weer ak benn lu mu mën mën ma am benn congé rek un mois dëgg la ndax tamit yaram des koy noppal mhm. dem dallu tuuti da ci baax dëgg la loolu mooy première bi mais ci biir dallu boobu aussi damay dem charger samay batterie macha allah waaw batterie yi <laughs> koy charger tubarkalla sëñ Modou man fépp laay charger wallaay Mm-hmm. am na sama voyage yooyu li li muy jur ay polémique man taalibe sañ Tuubaa la mm-hmm. mooy sama wasila dëgg la waaye man képp kuy góor yàlla nangul naa la mm-hmm. képp nag wallaay ndeysaan dama joteegul bax daat ak feneen ak feneen ak sireek nangam nangam waaye fii ma jot muy fii ci li ñuy wax góor gi ci faas uh-huh. dëgg la muy Cheikhuna Ahmad Tijaan radiyallahu anhu ndeysaan kooku de góor yàlla sëñ Tuubaa ne radiya nii surtout tijaani waaw nee na Seexu sax laq naa ngërëmam. dëgg la. Mm-hmm. ah kon nag ñun. su sëriñ moo wax loolu ñun tam ñu dem dabaatu ci ngërëm ya wallaay ndeysaan a ah? mm-hmm. moo waral heure bu ma demee Maroc la may gën a tax a jug. Mm-hmm. mooy dem Fès fi ñuy wax Fès. Fès mag ñi di ko wax Faas. dem chargé fa samay batterie. macha allah bu ma jugee nag ca euh, buntu ba laay jaar Rabat. muy Seydul Arabi nga xam ne Cheikh Tidiane wax na ne kuy ñëw ca moom na nga jaar ca Seydou Arabi def fa samay ziar ak samay ñaan doo ko jàll fees ca daj dëpp ga mhm. ñaan yàlla macha allah léeg nag am na ñuy polémique eh, waaw nangam dugg na fii man <laughs> sëñ Modou mhm. fépp laay mosee wallaahi daa yëpp laay mosee <laughs> waaw fu fu am dara rek maa nga fa mhm. te nag la ma fa ñaanoon daaw dama cee teg sama bët ci lu leer nañ barke bi ngay sàkku mm-hmm. moo waral ma dem bëgg a dem chargé ji waat mm-hmm. insha allahu taala macha allah ma chargé ba fees ñëw jukkuwaat na ko gars yi rek tubarkàlla <laughs> mu ngoog kon xam naa ni boo demee boo ñuy indi ñu barke boobu insha comme da ngay waajal voyage te mm-hmm. cabinet bi équipe la boo xam ni mën naa ne équipe bu dynamique la bëgg naa nga indi ci leeral comme boo demee naka la liggéey bi di continuer di di fonctionner waaw sëñ Modou liggéey bi du taxaw uh-huh. li xafisahullah wa raahu mhm. yàlla na yàlla dolli koy ngërëm aar ko te sàmm ko sunu kilifa gu mag gu baax googu mhm. di wax ne liggéey bu mu laal suuf dëgg la <laughs> wallaay ndeysaan waaw bu laal suuf hiyallaahu mhm. waaw bu mu laal suuf dañ ko yëkkati voilà <laughs> moo tax li am solo mooy cabinet bi mi ngi dox boo ma fi nekkee ak moo fi nekkul ndax mhm. formé nañ ay ndaw yu mat sëkk. dëgg li doon. Mhm. produit yi tam dara du ci manqué incha allah. macha allah mhm. kon xëy na ñi ñi ñii ñëw nga xam ne sama jëmm moo leen tax a jóg. moom mën nañoo xaar. waaye ñi nga xam ne produit moo leen tax a te daanaka produit yi mooy sama jëmm nag ndax bu fi ñëwee dem produit da nga fiy jël dëgg la wallaahi te dem nag dara du fi changé mhm. lu ma war a xam ci barab bi dem ko mhm. xam ne nag jamonoy dallu mhm. da ngay a nag ma wax damaa damaa a dem chargé jowaat batterie yi yi may ma chargé mu ngi noonu kon liggéey bi sax day laaj dallu ndax nekkul lu yomb dëgg neex yàlla waaye sëriñ bi ma ñëw ci benn point boo xam ne it xam naa ni dina am solo. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne dañuy teew wàllum seet. ñi nga xam ne dañuy soxla seet maanaam nga nekk fi ak nga nekk fa est-ce que mën a jëflante ak ñoom ci wàllum seet am déet. waaw xam nga seet bi moom. Mm-hmm. à distance mardi ba mardi laa uh-huh. ba mardi laay def seet bi. Mm-hmm. bu dee ñi ñëw fii ci cabinet bi ñoom ñooy laal may tous les jours. mais xam naa ne moom foo ñu jéggal ma. Uh-huh. ci weer woowu. weer woowu daal maanaam seet du am dara du am. ba kër ñëwaat incha allah ma ci jéggal. macha allah ndax moo démarche yooyu. ndax tamit foofa demuñu fa rek pour noppalu rek tëdd rek. Mhm. ku bëgg a chargé pile da nga yor sa kurus. dëgg la wallaahi. Ah? ah am na ñu fa war a def nag te yooyu nag tëju lay laaj aussi. Mhm, macha allah kon waaw danañ dañoo dem dallu. Mhm. waaye danañ dem chargé pile. macha allah kon ay leeral la ndaxte bu ma ko waxee noonu maanaam dina am ñoo xam ne ñaan comme ma nga foofu xaaral ma envoyé message. seen dama fay leeral. même daaw ba mu fay dem. dama def statut leen ni daw ma fa pour ñaanal kenn. déw ma pour kenn fekk ma fa ndax am na ñoom bu ñu yëgoon ne te yaa ngi Maroc rek. moom mhm. ñu daw ñëw. wallaay ndeysaan te wax dëgg yàlla liggéey bi nekk fi ma ko la kon bu doon wuti ji ay client rek. Mhm. damay toog fii rek. wallaay ndeysaan waaw mais nag mhm. dem pour ziare. dallu macha allah kon gars yi yu dimbali ma rek ma. incha allahu taala bañ dem ci jàmm ñëw ci jàmm. macha allah mu ngi noonu jërëjëf sëriñ bi mu doon ay leeral yu am solo. waaye ñu ñëw ci li nga xam ne mooy cëppaandawul waxtaan wi gars yi tàmm nañ ci sa waxtaan saa bu ñu waxtaanee jëlee fi njëriñ tey lan nga ñuy may li nga xam ne njëriñ lay doon waaw sëñ Modou man moom li nga may dàkkantelee. ñëpp am ñëpp a xam. wallaay ndeysaan góor gu baax ndeysaan. Mhm. keroog woo na ma ne ma sa tur boobu daal neex na ma lool. macha allah waaw loolu wax na ma eh, daal ñëpp am ñëpp xam. Mhm. waaw neex na ma. loolu la. waaw moo tax nag mhm. su ma sañoon ñëpp am ñëpp a xam. wallaay ndeysaan ndax bu xam-xam amee rek amam day yomb. dëgg la voilà. kon suñu Modou tey dinaa jàngale ci Latif. ndax si karkatu latif yi nag ñu naan man dooyu utal cuuraay ba noppi nag te joxoñu ay dog te joxoñu ay dog wallaay <laughs> latif am na dog boo xamante ni ñu ngi koy am muux na xàqu noonu lañ ko noonu lañ ko tëggee mhm. muux na xàqu muux na xàqu sëñ Modou mhm. soo jëlee seize mille six cent quarante et un mhm. muy am xawiyu seize mille six cent quarante et soo ko multiplier quarante fois moo lay jox six cent soixante cinq mille six cent quarante. Mhm. muy lim bu am doole. macha allah quarante jours lañ koy liggéey. Mhm. quarante jours maanaam chaque jours nga téye am xayu latif nga liggéey ko pendant quarante jours soo paree boo demee ba sa quarante jours mat utal ñaari ginaar yu weex tàll mhm. moo xam élevage moo xam produit pays nga saraxe ko nga ut cent vingt neuf tàndarma cent vingt neuf bekk suukar cent vingt neuf biscuit nga woo ay gone sarax leen ko léegi jàppal nag yaa ngi commencé am xuddaamu latif su boobaa nag léegi nga téye benn lim muy six cent quarante cinq mu tolloog xuddaam mu juróomi latif ñu koy wax xaadim maanaam bi nga liggéeyee quarante jours ci am yu ba tarbiya bu mat nga génn sarax bi nga téye six cent quarante cinq saa boo jullee rek nga def six cinq latif nga damalaat ak moom quarante jour encore sëñ Modou bu 40 jours yooyu matee nga xam ne 645 man na teel 129 chaque prière nga taxawaat ci xuddaam encore sëñ Modou sa giir dund bul téye bul bàyyi di 129. Mm-hmm. doo dund ba faatu te gisoo fatxul akbar ci ismullahi latif loolu moom maa la ko wax. Mm-hmm. amul demal maa ngi ñëw. Mm-hmm. sëñ Modou ba tey képp koo xamante ne da am ay gàllankoor. del ñaan yàlla yàlla des koy ñaan uh-huh. ndax léeg-léeg nga am jafe-jafe boo xam ne dangay ngay nit moo la ko war a teggal uh-huh. nga mujj mere ku ne fekk ne yàlla rek mooy aji dindi gàllankoor bi uh-huh. saa boo jullee farata bu noppi déglu leen baax neel rab bi moo du neel rab bi yassir yassir wala tuassir rab yassir wala tuassir juróom-ñaari yoon nga teg ci fa inna maal usri yusran uh-huh. inna maal usri yusran uh-huh. <laughs> juróom-ñaari yoon uh-huh. boo ko defee rek nga saxal ko ci diir bu gàtt yàlla dind la jafe yépp kon maa ngi ko répété ndax damay bañ laayaat bi rabbi yassir wala tuassir fa inna maal usri yusran inna maal usri yusran sëñ Modou lii gën a gàtt way way gaa yi way <laughs> xam nga ki mokkal Abu Sala jéeree xaw ma na sama doom mu daw yi tooñee mujj gi léegi ko bëgg jox ma ne ko nag loolu day dakk de <laughs> waaw ba mokkal way yooyu ay way ñoom Sidi Diop ak Waly fexe ba xam ni yàlla yii moo ëpp solo loolu foofu ah ku ko saxal rek yàlla dina teggi say jafe-jafe insha allahu taala mhm. sëñ Modou mhm. bi may daanele aussi mooy ñi nga xamante ni Mm-hmm. yàlla dafa dogal ne ñàkk ñu wërsëg ñu ngi liggéey. Mm-hmm. yàlla ngi ibbi seen wërsëg mais mënuñoo dajale dara foofu nag la ma fay wax mooy dajale du caage ne da denc. Mm-hmm. ndax denc ak ak ak nay la sama maam moo ma daan wax ne bu la daan xaslee rek. mu ne diw de daan naye nay bay lépp di denc. dégg wax ji <laughs> <laughs> xam nga nay boo ëpp na. nay nay ba dem lépp di denc. Uh-huh. sëñ Modou kat loolu mën naa la koo jox firnde bu gàtt. yow am na koo xam ne dem jëf prêt bancaire. Uh-huh. xam loolu leb la. Uh-huh. amagul benn projet. ñëw jël xaalis ba denc ko di xaar projet uh-huh. kooku daa <laughs> léegi nag bu fekkee ne yàlla dafa dogal. loolu dal la nga xam ne yow yow sa problème mooy mënoo dagale dara. maa ngi lay jox fa jamaanaahum jamaan muy allahu muhammad jibril di amu ji la xab lama lii hudrin man damaa bàyyi tal sam léegi bàyyi naa ko gaa yi waaw talsam yi li ma ci wax géej du ko jeexal foofu sax dinaa fa profité leeral benn télégramme boo xam ne après dinaa ko wax gars yi ñu bàyyi ko xel mhm. sëñ Mor li ma jàngale ci tur yàlla xamu nu mu toll waaye dama leen jox fa jamaanaahum jamaan mhm. fexeel ñu bindal la loolu 403 403 nga fexe dem ci àll ba gis fa loo xam ne de daa daw ba dajaloo fenn soit léeg-léeg nga gis ay xobi garab yu daw ba dagaloo fenn mhm. wala nga gis ndox moo xam ne dafay am fu muy versé ba am fu muy regaloo nga tànk ca ndox ma waaye laa xobu garab bu daw ba dugg ci pax loolu nag dafa jafe léeg-léeg pour nga gis ko mais bu nee ci àll da nga koy ci yëpp loo ci am rek jëlal saafara ji boole koog loolu dee raxasoo rek diw di raxasu sa àll dina toog insha allahu taala sëñ Modou mhm. man damaa jàngale 2021 ba 2024 mhm. luy turu yàlla ak luy talsam ak luy xaatim ak loo xalaat mhm. mu am benn télégramme boo xam ne livre électronique laa ko def ndax léegi piratage bi dafa metti Modou am naa yéene bind téere yu bëri mais pirate bi dafa metti lool mais am naa ñaari télégramme yoo xamante ni benn bu nekk lu mhm. mu tuuti tuuti la ci nekk ci ay secret ëpp na 400 secret ëpp na ko fuuf bibliothèque la mhm. léegi nag livre électronique boobu laa pare képp ko bëgg mhm. ñu jaay la livre bi loolu parce que boo ko képp koo xasa ut moom bu la neexee nga toog fële bu lu tuuti benn xam-xam. damay wax nag lu leer nañ man li may wax nëbbatuuma ci làqatuma ci. ku bëgg ci libre électronique boobu nga xam ne telegram la nga xam ne dafa nekk ci xam-xam ëpp na junni junni sax laay wax ma noonu laa ko mën waxee. ci turu yàlla ci càngat ak ci xaatima loo xalaat ma nga fa. benn telegram bi ñu ngi koy jaaye cinq cent mille francs. Mhm. benn telegram bi ah. waaw. beneen télégramme bi ñu ngi koy jaayee un million. Mhm. loolu nag ku mu rëcc sa fit xamoo xam-xam. ndax benn xam-xam képp rek nit laaj na ji ay junni. ak ay million millions. waaw kon nag ku pare benn télégramme bi ñu ngi koy jaayee mhm. ñu ngi koy jaayee un million. incha allah taala waaw sëñ Modou ñuy wax in uridu ila al islam ma stata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh

mu baax mi laabiir lool ngir jàppale doomu aadama yi yi xeetu tawat mbokk yi moo xam ndoxum siti hémorroïde prostate faiblesse sexuelle diabète arthrose ak yeneen i xeetu feebar bu ngeen ñëwee ci cabinet Sajaratu Touba ca Kër Massar terminus su 53 bi jënd tikke bu 10 000 francs mbokk yi tikke bu ñaari junni kese euh, feebar bi nga xamante ni moom nga fa indi moom Serigne maa liggéey euh, dina la ko fajal ca garab ya mu lay jox ak it ca traitement ba nga xamante ni moom la lay def loo kon mbokk yi daw leen gaaw seeti Serigne Malick Gueye cabinet Sadiaratou Touba foofu ca diwaanu Kër Massar ci terminus su 53 bi yéen ñi nga xamante ni da ngeen a féete ca diwaanu Mbour mbokk yi da ngeen di dem ca Sali Carrefour école Thierno Cheikh cabinet baa nga fa wala it ngeen woote ci 77 756 85 54 77 756 85 54 wala 76 756 16 59 76 756 16 59 mbokk yi Serigne Malick liggéey ki yàlla baaxal. ngir dimbali doomu aadama yi daw leen gaaw ngir kat nga mën a tàqalikoo sag jàngoro